kilifa yi nga xamante ni dañu nekk dañu yore réew mi dañu seetlu daal ci ay fee yu bari seetlu nañ ko yi fi xew bërki démb dafa tiis Sénégal gépp c'est vrai inondation am na fi mais li xew Cambérène amul fenn ndax dafa am bakkan bu fi faatu te li waral inondation yi ñëpp xam nañ ni bu doon taw boo xam te ni mooy taw bu naturel bi ñëw Cambérène rek inondation du am fii mais eau de ruissellement yiy jógee parce que c'est un constat boo xamante ni depuis quinze ans ñu ngi koy remarqué bi ñu defee infrastructure routière yi ba léegi ak pant yi ndox yu jóge ba police ndox yi jóge ba case ba Fadia ak feneen Parcelles Assainies dañuy converger vers Cambérène te loolu def naa ni démb ci guddi ñëpp constaté na ko ni muy dugg ci Cambérène ak vitesse bi muy ñëw ci Cambérène jéggi na dayoo c'est vrai am na benn canalisation eaux pluviales yu fi nekk mais bu doon canalisation boobu rek la Dakar yëpp inondé parce que mënul recevoir ndox yëpp mais loolu moo wax sànq moo waral inondation di am Cambérène waa loolu bu amee wax Cambérène ànd ak seen dignité sëriñ bi wax ne nañ ci profité gërëm xale bu baax ci seen solidarité. ni ñuy jàppee taxaw dimbalante mais ma mi ngi def ay dégâts dégâts yooyu dafa répété répété ba tax ñu ne nag dafa war a arrêté li tax mu war a arrêté am na ci moor doom suñu doom suñu rakk suñu jarbaat ndeysaan doon jàppale ay famiyam pour ndox mi bañ a yàq ci biir ba faatu ci yàlla nag mooy faat waaye ci circonstances yi mu faatoo dafa laaj ñu taxaw ci seet waaye lañ ci seetlu mooy bu weesoo préfet bi fi ñëwoon ak police bi nga xam ne xale yi baara nañ télé bi Dakar bouché ñu ñëw pour lijjanti loolu ndax ay embouteillage gisuñu benn kilifa ci nguur bi bu xam te ni teew na fi massawu waa dëkk bi massawu diine ji wu xalifa bi jaale loolu nag neexul waa Cambérène te bu ñu nee neexul waa Cambérène neexul communauté Layène benn parce que Cambérène mooy capitalu laa ilaha illah mooy capitalu diine ji te xalifa bi moo nekk ci bopp bi moo tax gis ngeen ñii jóge yoof ca moom ñëw teew suñu problème ñun mooy problème mu communauté bi yëpp loolu ñu seetlu lan moo tax nguur gi nga xamante ne am na ay mécanisme ay mécanisme da ngeen di comprendre lu ñuy bëgg am na ay levier ñu ñu mën a teg teg teg gi ba ñëw dimbali dëkk bi wala boo nga ñëw massawu jaale après nga ñëw ndimbal gi sax dañ ko tuddee ndimbal ndax loolu la ñu tàmm wax suñu droit la loolu dafa war a am gisuñu ko ñaawlu nañ ko nag ñaawlu nañ ko tey jii nañu xam ni Cambérène dafa am ay kilifa yu mat kilifa bu du woon loolu kon dëkk bi taal nañ ko waaye alhamdulilah bi ñu amee ay kilifa yu mat kilifa yu ne xale yi dal leen ñoom day dafa séen nañu jël seen i loxo jël seen seen i responsabilité waxtaan ak kilifa yi pour loolu ñu saafara ko mu jóge fii définitivement maanaam ñu am ay ouvrage yoo xamante ni définitivement euh, euh, inondation dootul am Cambérène kon loolu ci tënk. mooy li nga xamante ni metti na ci xol yi te bu mettee ci xol nga yëngu yëngu nañu nag yëngu nañu nee nañu buñ la dee napp ngay arrière di la matt di la matt ngay arrière di la matt ba nga sës boo mënul fayu sax nga siiñ leen ba nga xam ne am nga ay bëñ te loolu def naa ne xale yi def nañ ko waaye alhamdulilah bi ñu amee kilifa yu baax yu ni xale yi lii ngi leen métti ñun la gën a métti moo waral seen teewaay bi te waxtaan nag ñoom ci lépp message bii sax boo xoolee am nañu war ma ak teggin si ñoom waaye kon doon na gën a incendiaire ndax ku ñu dégg ci rajo yi lañ doon wax sàcc nañ ko wax ko sans seen digal wax nañ leen ni ñu leen bëgg wax yëpp kon ñu ngi leen di gërëm bu baax encore une fois suñu sang yu tedd yi ak suñu imam yeeg délégué de quartier ak monsieur le maire ñu ngi leen di gërëm di wax ni ci waxtaan wi lañu ne nañu jël en charge suñu bopp waa Cambérène solidarité bi am Cambérène te Seydina Issa ñu ne mu nekk mu barkeel

voilà donc ci tënk rek Cambérène ak communauté Layène bépp dañuy exiger ci nguur gi ñu trouver ay solution yu jàmpa yi démb ñu ngi doon jéem gis ngeen bi mu tawee ci guddi gi loolu ak ngi mu juraat donc ay solution d'urgence ñu ni nañu régler définitivement te mu sax dàq problème yi inondation yi di am ci Cambérène